mbokk jël ngeen jëf ci teewlu bi ci Sénégal 7 ñu amati mbégte retrouver leen si jotaay bi nga xam ne moom la ñu jagleel wàllu wér yaram ànd ci ak ki nga xam ne mooy docteur Abdoulaye Diallo bu ngeen fàttaliku émission bi weesu jot nañu waxtaanee lu jëm ci wàllu hémorroïde hémorroïde euh, liñ ci jot a faram-fàcce mu doon feebar boo xam ne lu ñu mën a faj la te docteur daal di am saafara bi. Euh, dañuy waxtaan ak moom tey ci yeneen jàngoro yi nga xam ne dafay nekk ci biir ci biir mhm. doomu aadama bi docteur ñu ngi lay nuyu merci di la fay euh, sëñ Gelani mhm. di nuyu équipe euh, Sénégal 7 yëpp mhm. d'accord di nuyu Yash sama petit frère di nuyu mbub di nuyu en tête Pape Ngagne Ndiaye Pape di la nuyu yow tu ami Euh, ni ma koy faral di wax rek maa ngi naw sa sa sa disponibilité sa mm. yar sa sa sa iman billah mooy sa diine mm. euh, sa comportement quotidien envers euh, la créature mm. ku jox cër doomu aadama nga te ku suufeel sa bopp nga macha allah tu es un grand grand grand grand journaliste macha allah <laughs> jërëjëf jërëjëf docteur ni ma ko waxe waxee waxtaanee nañ lu jëm ci wàllu hémorroïde jamono bi ñu weesu. Mm. tey ñu bëgg a waxtaanee ci jàngoro yi nga xam ne mooy sonal doomu aadama bi ci kollam moom la ñuy wax noonu. Mm. koll bi mooy biir bi. Mm. Eh, yan feebar généralement mooy lottal doomu aadama bi ci biir bi. primo y a ce qu'on appelle euh, mm-hmm. nag euh, mun na nekk bu fonctionnel bi buy dem di dikkaat mun na boo xam ne chronique la. feebaru biir aussi mun na nekk constipation parce que constipation ak colopathie bokkul hmm. mun na nekk hémorroïde parce que aussi hémorroïde ak constipation aussi bokkut. yéen différence yi. constipation mun nga constipé rek tey. Hmm. nga naan dar nga lâché fekk amoo colopathie. colon bi guddul colon bi gàttul amoo benn problème ci colon bi. Hmm. alors que colopathie maladie du colon la. voilà hémorroïde nag c' est les conséquences de tout ça mm-hmm. mais léegi comme nag tuyau d' vacuation bi foofu mooy feebar. d' bu bouché mu doon interne su feebaree ba amay dëdd ay kii mu doon externe. Mm. muy génn parfois euh, biir tilimaayam aussi am na mun na indi kyste ci biir bi comme si am nay kist over loolu de fekk yow am nga poids biir bi salte boole ci ngay lekk ay dax ay daxaar ak ay madd hmm. daxaar yi day coaguler graisse bi te ni mu koy coaguler mën na dem ba jox la ay kist ci ween yi hmm. ay kyste ci biir bi feebaru biir am na point de côté. docteur balaa ngay progresser. Mhm. am lu attirer sama attention jigéen ñi nga xam ne dañu nekk en état. Mhm. dañuy faral di préférer yu wex. Mhm. yu saf. yooyu du am impact aussi ci biir. surtout ci bébé bi. Hmm. lu weex lu saf day wàññi intelligence xale. Ah. ñu bëri xamuñu ko. pourtant ñoom dañuy am cette ce désir obsessionnel de day wàññi intelligence xale maa la ko wax hmm? <laughs> gis nga colopathie depuis foofu sax la commencé hmm. bébé bi li ne ci ci biir bi moo tax buñ ko bu bu buñ ko accouché euh, muy génne lu ñuul hmm. léegi am na luy des ci tubaab dañu doon joxe li ñuy naan euh, débridage surdébridage ngay naan pour nettoyer le ventre mais ah. toujours day des man damay naan poison boobu mooy mooy tax nit di dee di teel a dee hmm. moo tax man booy jël sama garabu par exemple kolopati di dindi yooyu yëpp damay faral di naan képp ku bëgg a gudd fan rek ñoo jël sama garabu colopathie boo moytu sax doo feebar. maanaam yaram bi lay raxas. waaw te biir bu setee yaram. genre déparasitage quoi. waaw. Hmm. noonu sax lañ koy tuddee déparasitage. wala déparasitant mhm. biir mun na am hernie hiatale mhm. ci côté yi fii ubbeeku biir mun na am biir appendicite ci wolof mooy xeer yi ñuy parfois ñu koy opérer nii fii les calculs rénaux waaw waaw non non non rein rein côté la mhm. bokkul gisoo même damay garabu kolopati bi day raxasale rein d'accord am na ay patients yoo xam ne nee nañu amoon nañu problème de mm-hmm. fekk dañu doon traité wu hépatite seen rein wéraale mais ça veut pas dire que man dinaa toog fii dinaa damay faj rein munu ko xaw ko aw ma garabam mm-hmm. rein ko xaw ma garabam le fait nag ay patients ne ma dama amoon problème de hépatite laa doon faju sama rein wér na du tax mug may naan damay faj rein man je fonctionne pas comme ça hmm. mu ngi mel ni hépatite garabam faj na koo xamante ne était porteur du VIH mais du du ma dem mug may naan damay faj euh, sida pourtant c'est le même virus et ñëpp xam na liy faj sida mën na faj hépatite parce que ñëpp yi ñuy joxe ay euh, ci ci ci tubaab yi li ñuy jox nit ñi bu ñu amee hépatite garab yooyu ay antirétroviraux la rek mm-hmm. garabu hépatite ñoom xam nañu amul hôpital tubaab amu ko li ma ci mën mënuñ ko ci li ma ci mën mënuñ ko ci le ba le mal nag c'est que je suis sénégalais mais sa secret docteur parce que efficacité bi nga xam ne moom la ñuy gis si traitement yi ngay def diagnostic yi commencer précis lan mooy parce que bu ñu gisee yeneen tradipraticiens on ils peuvent pas nous dire tout ça lan mooy sa secret parce que jànguñ ko gëstuñ ko mhm. yow boo mënee listixaar kay nga bëgg benn liggéey listixaar yow mënoo listixaar nga xool ban garab mooy faj appétit boo ma laajee maintenant xarañ bi c'est un don yow pour pour pourtant il y a des journalistes comme toi yéen a jàngaloon mais lu tax nga gën leen ay yow tu es relax dans ce que tu fais mm. yow tu es sollicité mais léegi pourquoi moi je sais que tu es sollicité man je sais qu'il y a des télé qui courent derrière toi pourquoi tu parles pas là et toujours la mm -hmm. peut-être c'est ton image ta personnalité ton concept ak ni nga waxee ak pap mon frère pap moo tax nga toog mm. c'est humanisme c'est ak ku nekk ak ni la yàlla mayee barke xaadimu rasul man sama médecine chaque jour mu gën a mu gën a yokku je sais pas d'où ça vient. xamoo daal secret bi lan la. je sais pas d'où ça vient. d'accord. pour te mais xam naa ne ni may pratiquer médecine bi jàngal ñu ma ko noonu c'est au-delà parce que ñi ma jàngal ñëpp suñuy waxtaan dañu naan mais foo jàngee jàng ak comprendre bokkul. xam nga su ma nee tu seras malade mhm. yow mën nga dégg tu seras malade keneen ki dégg dama ne dina feebar alors que néew ma dinga nga feebar man néew ma tu seras malade dama ne tu seras malade tu seras malade ak tu seras malade bokkul mhm. tu seras malade mooy di nga feebar tu seras malade mooy réellement jinax bii nga xam ne da feebar xam nga bokkul. cey docteur. xam nga bokkul. effectivement. xam nga bokkul. Uh-huh. effectivement. doo gis sax en réalité. si ma la nee un savant aveugle. Uh-huh. ma def liaison bi def un savant aveugle. Uh-huh. xam nga explica euh, signification bi day changé. Hmm? <laughs> allah donc ku nekk ak digginam. Hmm. ku nekk ak mën donc paj mi foog mu ak intelligence. waaw. Hmm. man nag nga jégal ma kii di ma woodee mënoo bañ jël sama la. nee na nga koy tele nga koy tele kupp kupp ma hmm. ngeen baal ma. donc kii rek laa am mooy sama sëriñ mooy sama lépp. sama yaay rek la am. macha allah il est vingt deux heures quelque du tëdd waxul ak man. c'est ça c'est comme ça. est parce que lii damaa fonk sa damaa fonk samay waajur nag. mais noonu laa fonkee waajur jàmbur yi mais xam naa du loolu. parce que am naa ay frères yoo xamante ni. fonk nañ seen waajur mais yàlla mooy leen li ma may te ñoo ma raw si jàng te xam naa ñoo ma gën a jub bokkul ku nekk ak don dafa am ñi bëgg yàlla yàlla bëgg leen dafa am ñu bëgg yàlla yàlla bëggu leen dafa am ñoo xamante ne bëgguñ yàlla yàlla bëggu leen dafa am ñoo xamante ne bëggu leen bëgguñ yàlla te mais waaye yàlla bëgg na leen quatre façon la d'accord euh, développé nga docteur ci jàngoro yi nga xam ne mën na sonal doomu aadama yi si seen euh, biir li ci saafara bi ak nuñ mën a def ba jot fibrome am na nu muy ree dama la naan demal nga opérer nga noppalu parce que sinon man dinaa la téye dinaa la vingt quatre semaines di la faj mm-hmm. wala ma lay téye pendant vingt semaines di la faj quatre mois cinq mois jaru ko est-ce que opération bi gënul cher traitement bi ngay proposé. bon peut même opération bi jaru ko parce que man su ma la fajee da ngay du ñëwaat mais ñoom bu dañ lay opérer mu ñëwaat opérer mu ñëwaat opérer mu ñëwaat et mais nag aussi laajal fan la ñu war a jaar bu ñuy opérer ndax ci kaw la wala ci suuf la aussi lu mot a bàyyi xel ci biir jigéen dañ faj fibrome dañ faj kyste. dañ faj hernie inguinale hernie hiatale góor dañ faj trompe bouchée de te da ngay naan garab rek mu perte blanche qui pue infection ñoo ko dàq faj fii quatre semaines nga wér mm-hmm. comprendre nga voilà ci biir biir feebar biir daal li ci jógee dafa bari nee naa la ci siti mooy bàyyi feebar yi biir mooy ndey feebar yi mm-hmm. biir mooy indi wax naa la ndigg buy metti mooy indi biir di seere mooy indi ni discale mhm. booy seere lu bëri di toog lu bëri wala di yëkkati lu diis da nga am hernie discale hernie discal dañ lay proposer opération man ma faj la ko en 4 mois 16 semaines sax du ma sax 4 4 4 mois 4 mois yi da manqué 8 jours mois bu nekk 40 mi ngay fay L4 L5 L2 L3 L1 L yooyu yëpp dañ koy faj arthrose cervicale arthrose yi yooyu yëpp da koy faj. yëpp c' est les mêmes prix les mêmes prix. quarante mille quarante mille mais lu mel ni arthrose trois mois la trois fois quatre semaines la douze semaines. Mhm. mais polyarthrite rhumatoïde ak hernie yooyu c' est quatre fois quat semaines mais ak hernie discale arthrose rhumatisme yooyu c' est trois fois quatre semaines biir mooy indi ndigg bu métti day indi ndigg bu métti indi bët yu lëndëm day indi yu tàng day yaram bu diis day indi hémorroïde day wàññi ngóora <laughs> biir mooy ndeyu feebar yi presque. bëri na lu muy jànk. te yii yëpp dañ koy faj jafe hmm. am na nag euh, biir buy métti man je préfère xam nga am na ay ay alxuraan jàng rek biir bi wér. wax naa la ci benn émission sama jabar dafa yeewoon biir bi métti ma jàng. Hmm. neuf versets yoo xamante ne dañoo toppante ma tuuti ci ndox bi mu naan raay ci biir bi mu wér pas problème. Hmm. mais li fa nekk mu ngi il y a du paracétamol alcoranique <laughs> il y a du paracétamol alcoranique yoo xamante ne ay verset la fu métti ci yow boo laalee mu deñ loolu dafa am fu metti ci yow soo laalee mu deñ dafa am ci alquran mm-hmm. man maa ngi koy woowee paracétamol alquran est-ce que xam nga paracétamol yi naan ak aspirine yi defal nañ émission hépatite ma falte ko wax mm-hmm. niñ koy naanee fekk nekk ko en cours de repas day indi hépatite ci biir repas yi nga ko hmm. war a naan. c'est une bombe contre le foie. Hmm? ñoom ñoo ko gën a xam man damay naan tubaab day tànn la fii créer la beneen feebar. lépp ngir garab yi man jar. incha allah dina am benn bés ñuy wax ci prostate. Hmm. prostate de kenn dematul ci euh, ci bon du tudd seen tudd kenn dematul ci fajum euh, euh, tubaab da ngay ñëw nga naan garab kat semaines nga mooy bu tëju bi mooy buy solo lu bëri bi mooy buy tànge bi mooy bu néewi bi mooy bu metti bi mhm. benn laa mënul faj mooy bu am xeer yi sur biir bi ak aaya alxuraan yi aaya alxuraan bon xam naa dina la dina la bett peut-être est-ce que jàng naa mhm. mais je faisais le maraboutage mais nee naa la ci lii rek la des ci ku bëgg benn richesse wala bayre njaay wala cat wala entente couple wala entente famille wala papier à l'étranger wala koo xam ne dafa amee rab ci yi laa koy defee. yooyu mais nga am aaju nga bëgg ma wirdal la pour aaju bi faju mhm. aw ma temps boobu. mais koo xam ne dañ koo liggéey mu sonal ko. bu ñëwee mën nga ko trente mille ngay fay désenvoûtement complet. ko soxla ay papiers à l'étranger. pour liggéey nga ko trente cinq mille. d'accord waaye nag nit nag di ñëw di ma fay ay cinq wala nga ma ne fay ma ma ñaanal la may kan. maa la gën ci yàlla boo hmm. amee cinq cent mille boo ma fay doo jël cent rek nga togg ay laax nga saraxe hmm. sa aji dina gaaw a nga may ci sa yaay cinquante mille hmm. ki nga jox sa million day fanaanoon nelaw di la fen bu lekkee un million après trois jours day naan waaw man de gënt naa il faut ñu génne xar nangam nangam xar bi nii dañ ko war defee daa bëgg a lekk rek nga indi xar bi <laughs> sarax ka yaa ko war defal sa bopp sëriñ bu la indil sarax billahi fenkat la yaa war a saraxal sa bopp waaye sëñ bi hmm. sëñ bi dëgg day naan nii nga koy saraxe ak nii ak nii waaye indi li ñuy def ko fii am lu ñu ciy def am ñuy bind lu ñuy bind ana yàpp yàpp yàpp yàpp feutre mën na ci tàkk waaye nañu bàyyi nit ñi waaye ñu ma ñu ñeex hmm. am na sëriñ yoo xam ne léegi laadum la ñuy laaj laadum barke alxuraan laadum dañ lay préciser laadum il faut nga saraxe laadum wala ñu ne la sa sa poids quoi si c'est soixante-dix kilos na nga génne soixante di kilos de sucre soixante-dix kilos de riz soixante-dix kilos wala soixante-dix sacs de riz soixante-dix boubou n'importe quoi. mais bu fekkee ne docteur da nga bëgg ubbeeku. Mhm. wërsëg bi ubbeeku. Mhm. boobu itam am nga bain. waaw boobu je nit ki ñëw d'abord sang cat sang yaram bi dindi malchance yi takk-takk yi um um yi. nee naa la euh, ci benn émission maa dàq faj sangat ci Afrique waxuma sax senegal trente cinq mille dong ngay fay man bu ma dul mënoon sangu ca dee naa bu yàgg est que xam man du ma takk ay gàllaaj yi yii ko di di woy saafara nii man garaw cat bi rek barke alxuraan du ma laal bay rek barke alxuraan te ñaan naa ko yàlla yaa deux ans nee naa ci benn émission su ma laalee bari sax yàlla yàlla bu yàlla nangu am naa bayre ba pare boo amee xaalis am mbay rek man dama am xaalis de. macha allah <laughs> mën d' dama am xaalis mën a solu. Mhm. yor ay kër yu rafet oto yu rafet ay jeeg yu rafet dégg nga ma ni. Mhm. sama lépp dafa rafet. man ci kamal lay wéy dans la perfection je ne suis ni dans la grandeur je ne suis ni dans la beauté j'ai dépassé ça je suis dans la perfection wala déggoo ma. Mhm. Jalal Jamal Kamal grandeur beauté perfection man maa ngi ci perfection. maa tey. macha allah <laughs> jërëjëf docteur. <laughs> c'est toujours un plaisir de te de de de causer avec euh, bu baax nga wax dëgg mm. yàlla. Euh, maa ngi jégalu ñëpp nag. Mm. waaw euh, di leen encourager ci liggéey bi. c'est toujours un plaisir ñëw toog fii ci chaise bi jaan ak yow di waxtaan ak yow. Mm-hmm. waaw di fàttali nit ñi rek ñun moom ñu ngi samedi, dimanche, lundi. Vraiment, bon, forcer. Si je dis que je ne travaille pas mercredi, je ne travaille pas. Si je dis jeudi, je travaille, je ne Si je dis vendredi, je ne travaille pas, je ne travaille kenn ku mu mën a forcer. Hmm. Joe Biden bu ma bëggoon gis ma gis. parce que je n'attends rien de personne. personne. Hmm. je n'attends de personne soxluma dara la kenn. lenn du xam-xamu jàmbur du alal jàmbur ma ci dara. am dégg nga wala déggoo bu baax xam-xam sax soxlatuma ko wutati. doyal na c'est bon. ku la bëgg jot. ñaan sax dox doy na sama ñaan ndey doy na ma. Mhm. ak jëf lu baax man ma religion c'est faire du bien je fais du bien j'ai du bien basta. macha allah ku bëgg a jot numéro secrétariat 77 203 08 04. jeex na wala 77 959 28 09 am na WhatsApp. j'ai la <laughs> la vie il faut la simplifier. Hmm. il faut la simplifier man damaa gëm sama bopp bi yàlla weesoo yenentu weesoo sama bopp laa ci teg du sëriñ du ndey du bàyyi sama bopp laa ci teg wala déggoo ma hmm. aha après nag ma doo gëm sama ndey te xam naa su may wut aljana ci samay peggu ndey laa ko wutee parce que loolu la yàlla wax hmm. dégg bu baax wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf yes